الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكجولي لي نيوغي دالو دي سانت ديكو توبال سوني بكار ديكو تالال سوني لوخو ngir mu tegg ci yoonu njub di ñaanal suñu borom mu saxal ba ñu koy fekki mbokk jullit yi ñu ngi fàttali aaya bi nga xam ne suñ boroom da ciy fàttali doomu aadama yépp ni leen li tax ma bind bind naa leen ngeen di ay góor ak jigéen waaye di ay xeer yoo xam ni eh, ñii dañuy ñuul ñi weex ñii di làkk lii ñii di làkk lële waaye loolu sama coobare ci laa ko defe waaye bokk na ci dama leen mën a wax Moy def na ko ngir ngeen xamante kenn ku nekk am nga loo mën a jëli sa morom waaye mu tëj di ni ki gën tedd ci yéen moo ci gën ragal yàlla kon nu xam ni tedd nga dëgg-dëgg mooy ragal yàlla waaye aaya di dafa am lu mu junj ci tàmbali bi loolu mooy li tax ñu bëgg waxtaan tey mooy xamante boobu yonent suñu borom wax ni ci la maanaam ndigal la lu jóge ci moom te ci la suñu njariñ nekk xamante nag mënta am te jonjoo mënta am te jonjoo amul jonjoo mënta am te amul ay yoo xam ni moom lañ koy defe kon loolu day dugal ci biir lu ñuy wax communication day dugal ci biir jokkoo day dugal ci biir bépp jumtuwaay boo xam ni dafay mën a joxe xibaar da fay a tax ba lu lu ñu xamee fële ñu man ko tuxal yóbbu ko feneen kon lolu nek sunu waxtaanu waxtaan tay te xam ngeen ni yoy ñuy wax moyen de communication ak communication ci bopam muy jokkale aw nit ak jokkale xam-xam da fay yu ama am solo alcorane ci bopam moy moyen de communication bu ëpp doole moy li nga xam ni moom la suñu borom tànn ci ay waxam ngir jagaleel ko xeetam bi nga xam ne ñoom la gën a sopp muy xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ay wax nekk ci nettali jëf nekk ci li mat li mat sëkk li mat xam lépp nekk ci li mat a moytu lépp nekk ci sallallahu alayhi wa sallam buñ jëloon sunnaam dañuy wax ni dafa mën a tënk li ñuy wax communication ak moyen de communication sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa lépp mooy wax dëgg bu dee ay kàddu la lépp mooy jëf dëgg bu dee ay jëf la lépp mooy dees mësta noppi ci lu mu gis ni du dëgg ñu def ko ci kanamam lépp lu mu noppi ci kanamam nit def ko te diglewu ko mooy loolu dëgg la kon euh, communication ak moyen de communication yi nga xam ne moo am waxtu wu nekk muy am muy man di soppiku waaye lépp rek mu benn benn yitte rek tax koo jug mooy fexe ba mën a jëlee dara dara ci barap yobbu ko ci barap jele ko ci mbolo yobbu ko ci mbolo jele ko ci nit yobbu ko ci nit te muy lu meuna am do ma dama kon lu njëkk amon na nu ne ñi daan def bax ba man di jokkoo waye ñi dox ba mu yagg ginaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ab bir ñu dogay indi lu ñuy wax talif di talifi kenn ku nekk la nga xam ak la nga yaakaar nii mën naa jëriñ doomu aadama yi nga dajale ko ci ab téere ñu koy ñu koy jox jolante xam ngeen loolu yàgg nañ ci lool nga xam ne mag daan na jóge ci ab dëkk génn am réew dem ci réew wuti ji ab téere téere donc tax koo jóg waaye loolu lépp dafay dugg ci biir mooy de yi ndax foofu la tolloon waaye it dafay wane seen yitte ñoom ci xamoon lu baax ak lim leen jaraloon ba jamono bii ñu toll nag nga xam ni egsi nañ ci jamono boo xam ne dafa mel lu doon daw benn dañ koy dawal junni wala mu ëpp ko lépp gën a gaaw gën a jàppandi gën a gën a gën a yëwén waaye nga gis ni kon loolu mel na ni ak cant yàlla la war a doon buñ ko jëfandikoo ci niñ ko war a jëfandikoo ndax kat li daan tax ba nit di jóge ci am réew di dem ci réew léegi fi nga toog ngay toog ci sa biir néeg du jar sax lu génn waaye ci néeg bi nga nekk yaa ngi fekk appareil bu ndaw boo xam ne maanaam am na ci ñu bari ci ñun ñoo xam ni livre yi ñu jëli ci ci seeni téléphone ak seeni ordinateur mënuñu koo lii waxuma livre yi nga xam ne moo nekk seen bibliothèque mag daan mag doon na wax bi bokk na ci li indi bekkoor ci réew mi moy kamil alxuraan yi nga xamni dañ ko dajale ci suñu bibliothèque ci gis ko jàng nga xam dañ ko tek rek ngir euh, diko décorer amna ci ño xamanteni kamil kaamil yi ñu teg moom décor dong lañ ko dé wa yooyu dugg am na ci ño xamni day gis koo xam sax day yor atom jël ab kamil tek ci kanam jël ab kamil tek ci ginaaw mu nekk ab mu nekk décoration té mo ne bu njëkk ba dé mag ñi tolon nañ ci yitt seen yitt ci alcorane ak nu mu jaxé won ci ñom nit bu ko masaana bind des ko des koy ab ab dekk lepp ben kamil fay am ndax yëndu woon non loolu lépp nag day wane rek jàppandi bu mu jàppandi waaye mu mën a nekk xéewal waaye mu mën a nekk musiba bu xéewal bi mooy bu ñu ko jëfandikoo ci ni ko suñu borom diglee waaye musiba bu fekkee ni dañ ko jëfandikoo ci safara kon xam ngeen ni li ñuy wax moyen de communication dafa am doole lool ci société moo tax ma wax leen ni alxuraan ci boppam bu dee dañuy tënk moyen de communication yëpp ngi ci alxuraan bu ñu doon tëgg sunna mooy moyen de communication bi gën a efficace sallallahu alayhi wa sallam li mu jëfandikoo li mu jëflante kon ndegam loolu ci la suñu dundu aju ndax suñu borom dafa ne li taarafu te taaraf mënta am te tawaasul amul xamante mënta am te jokkoo amul kon liy tax jokkoo am mooy moyen de communication kon ngir mu am ñun jullit ñi war nañoo seet naka la ko lislaam tënke ak lan lañ ci lislaam may ak lan lañ ci tere bi ci njëkk mooy lu mu ci man di doon ak fu sa yitte man di toll nanga fexe ba lii jóge ci yow du jëm ci keneen muy loo xam ni ci dëgg rek la tegu suñu borom dafa wala taqfu maa laysa laka bihi ilmun bul wax mukk di nettali loo xam ni amoo ci xam-xam bu leer kon loolu mooy li njëkk waaye nag li mu tëja aaya bi dafa mel ni dafa méngoo ak sunu jamono tey dafa wax ni inna samaa mooy lu ñuy dégg kon audio wal basara li ngay gis muy vidéo wal fuada ak la la muy tënk ndax bo buñ la déglu buñ la déglu buñ la joxe ab son nga déglu ko setan image amna lu muy bàyyi ci sa xol muy gëm-gëm ak pas-pas ba nga am ba nga ci am muni inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula bu yowmal xiyaama ni ñu lay laaje yow na nga xam la ngay dégg ak la ngay joxe ñukoy koy dégg des na ko laaj suba na nga xam ni li ngay li ngay gis ak la ngay joxe ñu koy gis des na ko laaj suba sa pas-pas ak na nga koy joxe loolee des na la ko laaj suba kon muy bi njëkk ci yi nga xam ni yu euh, ñu war a tënke la lii ñuy wax communication ak moyen de communication bu mën di doon ñaareel bi mooy responsabilité bi nga xam ni képp kuy jëfandikoo lu mel noonu war nga koo bàyyi xel suñu boroom euh, nga xam ni nit ki day fexe ba Euh, boo dee ab journaliste li ngay wax mu jëm ci nit mu mel ni loo xam ni danga ciy seet sa diggante yàlla rek lu mat a bàyyi xel la te loolu nag dafa mel ni bu ma waxee journaliste nag ñu jàpp ni dafa am ñoo xam ne ñoo am ay diplôme rek nekk ci journaliste waaye jamono bi ñu toll dafa mel ni ñun ñëpp ay journaliste képp ku yor ci téléphone yi ñu yor yor whatsapp yor facebook yor nangam ak nangam la nga cay la nga cay dugal di ko di ko say nit di ko di sa jot muy ab xabaar kon yow ci taskatu xabaar yi la bokk kon lii day dugg da dugg ci biir te léegi léeg ñu jox la image boo xam ni son boo xam ni wax joo xam ni yow sa bopp xamul leeru la waaye nga bokk ci ñi koy tasaare na nga bokk na nga yëg ni kon yow ci biir journaliste yi nga bokk ndax journaliste mooy taskatu xabaar kon kon képp koo xamante ni yaa ngi dugg ci biir cadre boobu na nga bàyyi xel responsabilité bi moom yemul rek ci ki nga xam ni dañ ko tudde ab journaliste waaye képp koo xam ne ñi tas xabaar ci nga bokk ci biir ci biir foofu nga dugg te gis nañ ni léegi ci jamono bi gis nga nit da ngay séq ak nit wala nga am ak nit jafe-jafe dugg ci biir internet bi lu la neex nga wax ko wala sax nga wax ko ni ko man damaa yor ak si internet wala damaa yor journal fay ak journaliste mu bind lu lu la neex ci waaj sa yoon nekku ci te bokku na ci juroom yi nga xam ni moom la lis moo tax ñi ñi tënk lislaam wax ni juróom yii de mooy yi nga xam lu lu araam moo tax aramal borom araamal ko lu dagan moo tax suñu borom araamal ko ngir sàmm ko juróom yooyu bokk na ca sàmm deru doomu aadama te loolu moom mel ni léegi lu am solo lool kon ñaareelu tënk bi mooy yëg ni responsabilité bi ci responsabilité bu mag a mag ñetteel bi mooy ñu bàyyi xel ci li borom di wax dafa wax ni su leen nit indilee ab xabaar muy ab saay-saay na ngeen ma xabaar bi bala ngeen koo tasaare kon leerlu xabaar bala nga koy tasaare ba mu ñuur ba nga jàpp ni lii de lu amal mën a amal njariñ doomu aadama yi la loolu bokk na ci charte yi nga xamante ni képp kuy jëfandikoo lu ñuy tasaare xabaar war nga koo bàyyi xel ndax su borom daf caa tegaat ni euh, loolu kat aw nit man na leen indil loo xam ne bu noppee ëllëg rëccu rek moo tey moo tey tegu te xam ngeen ni loolu bari na fi bari na fi ñiñ tuumaal ñoo xam ne mënatuñoo dellu si waat wolof dafay wax ni fayawa fayawa fayawa yegg du man mun fay kon képp kuy tuumaal doomu aadama wax yawa na bàyyi xel bu baax a baax wax bu diis jooju ñu wax ni fayawa yegg du man mun fay kon li nga koy tuumaal bis bu demee ba tuuma ja daj te du moom war ngaa mën a wër war ngaa wëraat fépp foo ko waxee woon nga delluwaat foo wax leen ni lu moom te loolu wóor na ni loolu daanaka rek lu mënta nekk la kon muy lu mat a bàyyi ñetteel ba ñeenteel ba muy bi mujj ci yi nga xamante ni moom mooy war a tënk képp kuy tas xabaar mooy li ngay tas mu nekk lu am njëriñ ñun nag ci réew boo ko seetloo dafa mel ni semaine bu nekk dafa mel ni semaine bu nekk am na xibaar boo xam ne moom la ñëpp di waxtaane bu rombee ñu fàtte loolu nekkat ci beneen kon dafa mel ni ñuy waxtaane du am solo ndax li am solo nit ñi duñ ko fàtte waaye barki démboo njaay am na soxna soo xamante ni dafa dañu dañuy dafa réer réew mi yëpp moom la waxtaane ñu toog mu yàgg mu génn feeñ ñu fàtte loolu ya ca nekkoon yëpp ñu génn ko bala moo jeex rek ñu indiwaatam ñu beneen am na ci waay xamante ni moo nga woon ci ab dëkk bu sore sore nee na ab yonant la euh, ñun ñëpp di ko ngawtu ngawte ku nekk ni def la metti ñaari fan ñett ñu génnaat bërki démb bu am mbooloo moo xam ne dañoo daje ni dañuy dem Touba ni ñoom it waaja ni ab yonant la ñu nekkaat ca coow kenn ku nekk ni naqari na la ñaari fan ñett ñu génnaat ca ñeent maanaam daal dafa mel ni semaine bu nekk ak xibaar yi nga xam ni moom la ñuy indil xibaar yooyu moom la ñuy def suñuy xibaar moom la ñuy def suñu yitte ma dama yaakaar ni am li yitte dëgg-dëgg du lu ñuy jàpp ka bàyyi li yitte dëgg lu ñuy jàpp ka bàyyi kon li mat a jàpp mat a bàyyi loolu rek moo mat a xam loolu rek moo am njëriñ waaye ni ñu koy defee nga xam ni day mel ni sax buñ ci tollee ku ko deful dangay bokk mel ni bokkoo ci bu ñu bu ñu dee naqarlu mbir dafa mel ni képp ko koo naqarluwul ci réseaux sociaux yow bokkoo ci affaire il faut nga naqarlu ko yow waaye boo ci noppee fa nga yem mm, ñu tàmbaliwaat bu subaa ñu tàmbaliwaat bu ginnaaw subaa ñu tàmbaliwaat ba nga xam ni yu yées yu bon yi ñuy def ci réew mi dañuy dem ba mu egg ci daanaka dootu saxati kenn ndax dañ koy waxtaane di ko waxtaane di ko waxtaane mu nekk scandale bu njëkk defaat ko scandale bu mujj day dem ba mujj dootu nekkati dara dootu amati solo te yooyu yu mat a bàyyi xel la kon li ñuy tënk daal ñu xam li ñuy wax moyen de communication ak bu mu fi ñu toll ci jamono bi ñu toll nii mu ngi ci loxol ku ne ñëpp ci mën a jot ut ab chaîne télévision boo xam ne da ngay sa bopp di wane sa bopp loolu ku ne mën nga cee jot fi mu léegi téléphone buy def loolu maanaam jërëtul lu wéyal sa ñetti junni te boo ko amee mën ngaa am chaîne YouTube boo amee chaîne YouTube mooy chaîne télévision boo ko dugalee ci internet bi fépp lu mën a dem ci àdduna kon loolu egg nañ ci jamono boo xamante ni léegi kenn ku ci nekk journaliste bi wala mën nga koo doon boo ko bëggee ñaareel bay nit ñi dem nañ ba xam ni mën na mën naa génn nit ki ci mu bërki démboo njaay muy ku ñu xamul woon fenn fenn fenn nga def ñaari fan ñett adduna bi yëpp xam la di la di la di la joxe ndegam nit ñi xam nañ ko nag te am na ci ñoo xamante ni ñu xam leen jaral na leen lu nekk moo tax lu nekk ci mën a am léeg-léeg nga gis koo xamante ni day dof dof loo dof loo ba nga xamante ni da nga naan lii ba mu koy filmé xanaa ay mbokk gisuñ ko te ci biirum néegam la koy defee tëji buntam bu noppee adduna bi yëpp yëpp ko gis ko te lépp ci jublu woon mooy ñëpp xam ni moom a diw donte ak ñàkk fayda ndax ay nit a ngi fi siiw te ay saaga dong lañ leen xame eh, ñu ngi topp ay nit ay saaga dong lañ xame ñu ngi topp aw nit nga xam ne bis bu set vidéo bu mu génnee junni junni nit a koy seet teelu bon dong lay def kon loolu it muy réalité boo xam ni moom wax ji tere mu du tax mu ko loolu lu am la lu ñuy intègre eh, fee la lu am la rek lu ñu war a xam la te war a fexe ba nag xam nan lañ koy jëfandikoo waaye li wér te wóor mooy li ñu wax moyen de communication yi moom léegi ñëpp ñëpp ci mën a jot ñaareel ba ñu baree bare ci bëgg siiw jaral na leen mën nañ koo jaarale ci internet ñetteel ba ñu xam ni lii di moyen de communication dooleem egg na ci fekk lu amul benn solo mu jox ko solo ba ñëpp di ko jot loolu nag misaal yi yaakaar naa du jar ñu ci joxe benn ñaar waaye misaal yi bare bare dañuy fekk mbooloo moo xam ni dañoo dajaloo ci barab di ñett nit ak ñeent ñuy ñëw filmer leen filmer boo xamante ni wax ni dëkk sàngam ngay fàkk fekk ñett nit ak ñeent donc ñoo ko nekk di cëpp cëppee ko wadd wadd kon euh, dafa am doole ba lu amul solo mën na koo jox solo waaye man nag bi ci gën a doy waar mooy doole ji mu am ba mën a fekk lu am solo ba ñëpp war koo fonk mu jox ko mu jox ko tur daare te loolu am na loolu nag lu mat a point la bu mat a taxaw mat a bàyyi loo xam doomu aadama yi ñu xam ne li ñu am di ko wagar di ko fonk lii di mooy de communication yi mën na koo yóbbu ci lu banaal loo xamante ni amatul benn solo kon kenn ku ci nekk la nga fonk moom ngay tiitaroo réew yi ñu nekk diine ji ñu yor nañ ko fonk te bañ ko foowee te internet bi dañ ciy fonk ci ci diini bi ñaareel ba kilifa diine yi fi nekk nga xamante ni ñooy dernier socle bi tey réew mi nga xam ne képp bu bu ñu bu ñu nërmeel woon réew mi nërmeel ñooñu it internet bi ak moyen de communication yu bees yi mu ngi yóbbu nit ñi ci ñu banaliser leen ba nga xamante ne day dem ba doonut doonut doonut dara nga xam ne da ngay dem seeti kilifa. fekk ko ci ci ci mu yóbbu la ci néegu biiram yow nga ngay ngay nga toll ci moom foo xam ni na ko fekkee mbubb ma mu sol mbubb mu woyof la nga jël sa photo yemoo ci photo ko rek waaye da nga koy filmé sax te yëgul li ngay def nit dina am waxtaanu biir am na waxtaanu biir am na waxtaanu pénc am na waxtaan wu ñuy waxtaan ci biir mbooloo nga ñëw ci barab seet si kilifa wax ko dis ko say soxla wala dis ko soxlay mbooloo moo xam ni mbooloo mu yem la mu leen di wax ngir waxtaan mu jam yam ci biir mbooloo moom ngeen filmer ko ni ko daj ci biir internet bu ko defee waxtaan wa nekkoon waxtaan biir néeg génne nga ko biir néeg ba dégg indi ko ci digg pénc yooyu yëpp nag dafay dugg ci biir poyo bi ma mujj wax mooy internet bokk na ci yi ci gën a yées mooy day fekk lu nit ñëpp fonk mu woyefal ko ba kenn dootu ko faale lu mat a bàyyi xel kon yooyu nag moo tax ma bëgg a tëji ni képp koo xam ne kilifa nga kon képp ku ci jëfandikoo di koo man di doon bi ab julit yii ma wax ci sart yii ma njëkk tënk na nga ko bàyyi xel bu baax a baax ma jaaraat ci mooy lu mu ci man di doon la ngay wax na nekk dëgg ñaareel ba li ngay wax na nga seet ba xam ndax amal na njariñ nit ñeem déet li ngay wax na yàlla rek tax li ngay wax ku ci seet rek sa bopp kon yii dafay ay charte yoo xamante ni mënta ñàkk ci jullit bi ci lu man di dox te ñun ñëpp ay journaliste lañ jàng ndax internet bi ni mu nekk waaye nag euh, ndénkaane lay doon walla fàttali rek ndax ñi may waxal ñuy samay kilifa waaye képp koo xam ne am nga benn daraja ci yëpp am ñu la fam na nga bàyyi xel ni lii di internet ak bépp moyen de communication bu man di doon rajo bu la man di seet si benn kilifa wër te defati lu xew ñu yëkkati ab rajo indil la ni la waxal na nga seet ñiy wax ñi ñi lay wax loo ñan la na nga seet kii ñëw ci yow kan la ndax wax ji léegi li ñuy wax montage dañuy jaar ci digg yi li ñuy wax montage wax wax joo wax ba noppi mënees na koo dagg jël fii teg fële tax fële te nit ñi kenn ku ci nekk kenn mën mënees na xam kenn ku nekk la mooy intention kon kilifa yi nga xam ne egg nañ ci mën a xam loolu seen seen jot may leen ko ñu bàyyi ci xel waaye ñi nga xam ne ñoo wër kilifa yi kilifa yi ñu wër seen i jot eggul foofu ñoom ñu bàyyi xel ci seen bopp bàyyi xel ci seen kilifa yi te waggar leen ndax réew mi ñu yor kat lii mooy soxla bis bu ñu ñàkkee soxla boobu diine ji ñu yor ci boppam dina dem ba tasaaroo te bari na ci réew yoo xamante ni boo ko demee diine lislaam ci tur la nekk waaye nekkatul ci jëfi doomu aadama kon yàlla nañu yàlla musal ci loolu yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm ci réew lépp maye jàmm na ci nit ñi wax te di ci dox te di ko ñaan aqulu qawli hada wa astaghfirullaah